mbaa luy lu ñu warula siiwal li ma leen wax ci biir lëndëm wax leen ko ci leer li ma leen dey yëgle leen ko ci kaw taax yi te bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen ki mën a sànk yaram ak ruu ci safara ñaari picc ramatu ndax duñu ko jaay ci dërëm waaye benn ci ñoom du daanu ci suuf te soobul seen bàyyi seen kawari bopp sax wàññees na leen kon bu leen ragal dara yéen a gën di raanu koo xam ni nangu na ma ci kanamu nit ñi man itam dinaa la nangu ci sama kanamu baay bi nekk ci kaw waaye ku ma gàntu ci kanamu nit ñi man itam dinaa la gàntu ci sama kanamu baay bi nekk ci kaw te it bu leen defee ne dama ñëw ngir indi jàmm ci àddina ñëwuma ngir indi jàmm waaye jaasi laa indaale ndaxte ñëw naa ngir féewale doom ak baayam doom ju jigéen ak ndeyam jabar ak goroom te nooni nit ñooy waa këram ku ma gënalul sa ndey walla sa baay yeyoo wuloo ma ku ma gënalul sa doom ju góor walla ju jigéen yeyoo wuloo ma